alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani ndax sama daara yi koy fàttalekal koo jëyee ku ne xam nga ne war nga faa gàmmu ji bu jaagee waa bëgg nag ku ne wàcc nga gàmmu ñu gàmmu ñu fi laa gàmmoo rek nee na gàmmoo te yëpp xam na ma ci ma ne ko gàmm war na maa bëgg ñu di ko na julli yëpp waaye nag ku bokk ci sëñ Tuubaa moo ci raw ndax ndigalam ak fonction nga waaye guddi ko ko ko mën ko ko mën a def war sos gàmm daal noonu ko sos ñu fa jege def rek ku mën nit dañ koy defee da dem di ko fekk ci waaye guddi gàmm kat yemale ko guddi yi ko jëkkoon yemale ko guddi yi ca topp jël ko ci jullit ko fonk bu baax a baax a baax ñun ñoo dina sant ñaan yàlla may na ko mu jox ko te yàlla nangul na ko jox ko ñu ko sañ suba di yow mu tànk si moom bisu nga si daanaka loolu rek la ñëpp des sax léegi ñun loolu amatul نسيم وهو اليوم ستور بسوري كتاب الله وسنة التي بها أعتمي أما نعم بسور خسوري خلت والأهل عني تفرقت لمن الذي عنه المدير قسير خذ زنون قلوب برب التفاجيلا لهم دائما له من الذنب والآفات وهو غفور له تبت من عيب دفاتي لخيره ومني له عبد علي كبير لو تبت سابع وأرجو رداه ومني له يدوم كثير فجئت ببزر منه أبغي شكوره عليه صفاء والمكوس قبور di soññe ci benn salaatu bu am solo muy sallallahu ala muhammadin solo si nag jéggi dayoo bëgguma cee def temps bëgguma ci commentaire waaye dafa bari njariñ ba jéggi dayoo man nag salaatu la boo xam ne moom dégguma ko moom dama koo xam man dégguma ko moom dama ko xam dama ko daan liggéey téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent ci benn bis dama ko daan liggéey liggéey bu metti mujj nag mu defal ma benn kës fu boo xam ne saa yu ma ne lawee ma sonn la koy dindi nga daal ba ma sonnee ba sonn daal dama ne suñ wàllu man daal maa ngi nii gaal goog boo waxut rek du la daj nga xam ne toog naa at yu yàgg ñimeetuma sikar ci kurus moom damay su ma baaxee ab sala samay baalaam laa koy def ndax boobu tàmm naa ko te bu may sikar muy daal di ñëw nga xam ne salaatu gu ma xam ne man ngi ko njëkk a fekk ci téere euh, ci téere Youssouf ibn Ismaïl Nabahani ci afdalu salawaat ala sayyidi saadaat falaa ko njëkk a fekk moom sax dajaa commentaire di wax njëriñ boo ko dee def bu guddee malayka yi dañuy def délégation ne yàlla sa jaam bi di julli di wax sallallahu ala muhammadin dañoo bëgg nga jégal ko yàlla ne leen jégal naa ko ñu waxaat loolu yàlla ne leen jégal naa ko ba jégal ko tooñ yu mu tooñagul bu ko jégalee bu ko tooñee njégal gi jiitu na ko du kenn du ko bind ñu ne ko dañoo bëgg nga fal ko mu ne leen boole naa ko ci sama wali yi te duma ko folli ñu ne ko dañoo bëgg nga boole ci ak na yaay ñu woomal ñi mu ne leen dana woomal nga xam ne ku ko saxoo sax da am ko moom saa yi da nga ko am te day lakk euh, bàkkaar ni sawara di def euh, mat fu ko fekk rek daal di koy taal di waral jege yonent bi sallallahu di waral yàlla bëgg la day day sa bu saxee ci jëmmi doomu aadama jëmm nit kooku day représenté l'islam ci kaw suuf nga xam ne noonu yàlla yi kese ñoo koy bañ ak munaafiqoona yi waaye ak mushrikoona yi waaye mboolem julli yi dañ koy sopp te duñu xam lu tax fekk leeru sallallahu ala muhammadin gi nekk ci jëmmam moo koy waral julli gu bari njariñ la daal lool lool lool an xayril xalqi uhaddithukum huwa abul qasim محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أشرف الناس نسبا وأوسطهم خلقا وأخلدهم ذكرا كل ما اتصل بالنبي خالد فها هم الشعراء يروحون على طرق البيان منذ فجر التاريخ يراودون ألفاظهم مدحا له فخلدوا بخلود ذكره فهذا البوصيري ما زال قوله يطرق أسماع الزمان محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فأقل نبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وما تقلد شوقي إمارة الشعر إلا بقوله لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahaabatihi wattaabiciina lahum eh, dafa am leeral yu am solo yoo xam ni dafa mat eh, leeral ci wàllu gàmm gii nuy gàmm barsan bi bu ñu koy jàng moom ni mu taalife day def saa bu defee ab bunt ba muy jeex mu ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla yàlla na nga xeeñal bàmmeelam boobee ci xetub julli akub sëlmal bu bàyyi ko ci yow jamono bu ne na xet googu yi di bonnee ci eh, barabam boobu mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan googu nag ni mu koy waxee ci araab mooy xatirillahumma qabrahul karim bi arfin shadiyin min salaatin wa taslim te dañuy bëgg saa bu ñu fi àggee wax ko lu mat juróom-ñaari yoon kiy jiite njàng mi wax ko nit ñi teew ñépp it dañuy bëgg ñu wax ko ne xatirillahumma qabrahul karim bi arfin sariyin min salaatin wa taslim xatirillahumma qabrahul karim bi arfin sariyin min salaatin wa taslim bu ñu ko waxee ba muy juróom-ñaari yoon ñu wax ni allahumma salli wa sallim wa barik alayhi boo fee loolu bu ñu ko waxee nit ñi dañuy bëgg ñu baamtu ko ñoom itam lu mat ñetti yoon allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ku ne nag war ngaa jàng baat yooyu fexe ba boo teewee gàmmu gi nga bokk ci ñi participer ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jàng gi it jëfewut ci ku mooy ku ne rek war ngaa góorgóorlu danañ ci taxaw suñ kem kàttan ñu itam ci wàllu jàngale gi ak tasaare gi ak bind gi ak joxe gi ak sako nit ñi ko ko mënut it na gis ko ko man mu sako ko mu leer la ko ko ba nga xam ni bu ñu tollee ci di ko wax dana ko mën a baamtu ni ñu ko bëggee loolu kon lu am solo la ci am jàngale ñu war ko bàyyi xel baax jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا